man nag damay lépp sama tur ak sant bi seulement dama nekk jeune nekk fii Dakar daal di marié biñ ci tegee quelque fan après si la sama jëkkër tukki waaw bi mu ñëwaatee nag ñu nekk amuñu benn problème. am ngeen doom. amuñu doom. waaye bi ñu amee bi mu ñëwee nekk nañ ci jàmm ak salaam ba mu dellu ma toog nag di ko muñ après sama benn copine. ñëw fi ñuy waxtaan. ma mhm. expliqué ko ne ko jigéen la te damay yëg sama bopp. après moom tamit li may dund moom lay dund. Mhm. ci la ma sama xarit boobu daal di wax ne am na benn objet bu am. bu tudd vibromasseur. man nag xaw ma ko woon ñemee ma ko woon. pour expliquer rek vibromasseur ñu xam ne xamuñu ko mooy maanaam. moom benn objet la daal boo xamante ni dalay jox plaisir. tamit mel ne kii góor daal. waaw noonu la mel. léegi da lay jox plaisir. léegi bi ma toogee benn moment man naa ko essayé bi ma ko essayé nag après ma ma yëg ci loo xamante ni mosuma ko yëg sax ci sama borom kër. yow daal kon mun na ne vibromasseur boobu la ci yëg yëgoo ko dinaaw ba nga sëyeeg sa jëkkër bu yàgg mais soxna si yow est ba ngay sëyeeg sa sa sa jëkkër nga mos a sëyal. waaw man sama jëkkër rek laa mës a xam. te wax dëgg yàlla aw ma ci woon benn problème seulement bi ma sama xarit bi expliqué loolu nag ma daal ne naa ko essayé mais bi ma ko essayé li ma ci yëg moom wax dëgg musuma koo yëg ndax man sama jëkkër bi may jël boobu xale la xaw ma dara donc ci moom laa mës a yem waaw léegi nag bi ma ko jëlee ñu teg ci quelque temps après moom mu daal di ñëw sa jëkkër ci boppam waaw sama jëkkër daal di ñëw léegi bi mu ñëwee ñu oh. nekk ci jàmm ak salaam mais li ma doon yëg daal ci vibromasseur bi wax dëgg yàlla yëgatuma ko ci moom. xanaa sa jëkkër lu mu yore dafa ndaw. mën naa ni waaw ndaxte li ma war a yëg moom comme jigéen wax dëgg yëguma ko xam naa looloo tax nag léegi nag rus naa ko koo wax mënuma ko koo wax bu ñu nekkee guddi gi dañuy nekk ba benn moment moom dina jot boppam daal di tëdd. maanaam moom daal dina daanu daal. waaw daal di tëdd. xam nga góor ñi moom seen plaisir bopp rek lañ lijjanti waaw sort comme que sa ñun duñu wax sa tur dañu bëgg rek boy bu ñuy wax mu ñuy wax ko mu leer ñëpp di ko comprendre daal maanaam sa jëkkër dina daanu mais yow doo daanu déedéet man daal duma yëg sama bopp ni ma ko war a yëgee ni ma ko yëgee ci vibromasseur wax dëgg duma ko ci yëg looloo tax su su paree rek dama koy waxtaanal ba mu nelaw man tamit ma daal di dem ci douche ba jël sama vibromasseur continuer li nga doon def. voilà loolu daal mooy tax ma yëg sama boobu. mais yow soxna si yow fibromasseur boobu. est-ce que yow xam nga lu ci nekk ci danger. ah man de wax dëgg gisuma ci danger. gisuma ci benn danger li ma ci gis daal mooy bugguma mooy sama boroom kër te bugguma dem tamit di taxawaalu xaw ma ko woon xamal nañ ma ko kay te xaw ma nag di ci lislaam wax wax dëgg. mais maa ngi ci doon jot sama bopp bu baax benn jour nag. Hmm. nekk naa ak sama jëkkër jéeg boppam ci lal bi après ma daal di jug dugg ci douche bi bi mu jékkee jékki gisuma ci kaw lal bi nag après mu fekk ma ci douche bi fëgg laaj ma lan la ma ni ko dara mun na ma est-ce que ça va ma ne ko ça va très bien après mu daal di demaat te xam nga loolu tamit mënul wëy léegi nag ma doon tàllal loxo rek koo xamante ne mun na ma ci jox conseil xalaat ndax bugguma am jëkkër am far te bugguma tamit mooy yàlla. kon daal boobu ba léegi daal yow ba léegi bi. wax dëgg yàlla bàyyi bu ko moo may jox li may yëg. ah te sa si jëkkër euh, mënu ko laa jox du koy kon mbokk yi ñun ñoo ko déggandoo kii loolu mooy problème am xanaa rek ñu xaar ci commentaire yi bu fekkee ne am na ku ko mën a conseillé euh, mu mu jël ko parce que ku nekk ak sa tiis.